raxasul ndab xaw ay ay affaire yooyu kooku seen affaire la mais loolu xëy na ñun nit ñi luñ bëggoon am nañ ko te fenn fi te nag loolu mooy politique u Sénégal loolu mooy politique Sénégal boo fi feeñ sénégalais yi soxluñu loolu wante bu ñu waxee ci analyse rek tey ñu ngi dem Sénégal 63 ans war a dem pour sa 64e année euh, présidentielle xamuñu qui seront les candidats lu doy waar mais am na benn candidat boo xamante ne wóor moom affaire am wóor na mooy Idrissa Seck c'est le seul candidat boo xamante ne c'est la certitude. ah oui à part dama ne certitude mooy si ñu bokkoon. Hmm. ak waa PUR. Hmm. certitude. ma ne bu doon candidat c'est la seule certitude. Hmm. réew mi c'est la seule certitude quoi bu ñu waxee président Macky Sall si boppam ah, dina metti de quand am na loo xamante ni fii bu bu bu bu bu newoon tam day dem présidentielle quelque part am na benn foog mu changer affaire te rapport de force ngi fii yombut du yomb si moom sénégalais yaa ngi koy xaar avril lu muy wax sénégalais yi après la Korité lu muy wax sénégalais yi plus muy tardé plus ça devient compliqué faaw mu wax ak sénégalais yi ñu ne loolu boo waxee. Karim Karim pour mu ñëw Sénégal politique faw mu am ay conditionnalité yu fi def du dëgg c'est pas le cas d'Idrissa Seck boo waxee xalifa Sall pareil foog mu xaar avril bu ñëwee si Sonko mu am ay décision justice pareil ce n'est pas le cas d'Idrissa euh, Seck encore que fotel ñeneen yi ñeneen yi Diouf un ancien de chez vous ab docteur Abdourahmane Diouf Abdou Abdourahmane Diouf ak ñeneen ak ñeneen Camara ñoom conseil constitutionnel mooy wax ci ñoom il sera difficile nga imaginer Idrissa Seck bi amoon ay parrainage bañ ko amaat donc loolu tax ma ne certitude léegi Idrissa Seck problème fan la mën a ne mooy les moyens est-ce que am na ay moyens est-ce que am na ay moyens yoo xamante ni dina politique beneen affaire ga mooy discours Idrissa Seck dans un pays très jeune dans un pays très jeune xale yu bëri Idrissa Seck a quand même defe naa six ça va être sa septième prési euh, présidentielle bu dee def siy bokk c'est quand même une expérience mais xale yi est-ce que xam nañ ko. xale yu 2000 yoo xamante ne 2000 2010 est-ce que xam nañ ko noonu te c'est pas quelqu'un qui a beaucoup parlé ces temps-ci sorti yi raar trop trop trop trop trop. donc beneen bi boo xamante ne pour moom mooy appareil ba mooy loo xamante ne kii lay wax parce que pour mu mun a dem faw mu am appareil te affaire yi commencé na parce que bu fekkente ne Touba Diourbel la conquête de ces voies là peut-être que Casamance dina difficile Dakar donc xeex bi commencé na donc Idrissa Seck pour moi aujourd'hui si candidat yoo xamante ne à la candidature si ñu ñu xam ñu bokkoon 2005 deux mille euh, euh, autant pour moi deux mille dix neuf moom ak waa PUR bokkoon PUR c' était Issa Sall crois bokkoon ñoom ñoo si gën a taxaw parce que pour tout le reste c' est point d' interrogation ce qui peut-être étonnant xëy na nit ñi xam na loolu mooy lii. Hmm. ping pong bi bu tuddee ko ping pong bi xaw na jaaxal nit ñi dafay am tam lu muy woon dafa am lu bëri lu muy woon pour moi c' est ça c' ça. la lecture boo xamante ne moom laa def der. Malal Idrissa Seck candidat gis nga coow li. ba pare